lii lu ko fi jar wooy wooy sama ndey dugg na wooy a ah, duggul duggul duggul Guardiola lii ba kañ waaye booyi laa dégg ñu naan borom mayga bi tëj na ma tiit ba daanu moo tax man ca première mi-temps balaa génn ba ma déggee mu naan borosé deux cent moo des eh. bi ngeen préparé dem may ga mënoon ngeen invité seen adversaire ak gërawul maafe biñ añee suq ñànka bi lañu mujjee réeree ndax ñeex mi dafa jeex mu ni eh, lii moom neexul tamit boole defet ak reeree ñànkatang mënoo bàyyi yàq der du ñànkatang bi amoon na tuuti suul doo ko wax benn dànk suul ci ay ponkali góor dafa jara tudd bul ma sonal waay waa lii lan la eh looy def nii yow. maa ah, tey su ma yeggee dinaa ko wax sam papa. eh Karim xanaa da jote ak père Ancelotti. waaw parce que fii lañ togg mbaxal bàyyi ba ma génn ñu teg ko lekk ko. pourtant demeewul ni nga ko foogee nii de mbaxal mi safutoon gerte moo tax mayuma la. eh. mais problème mbaxal boobu sax weesu na. lekkuñ mbaxal benn yoon de saa yu benn jamono demee boutique ba ñu taaj boolu mbaxal. yow kay yaayee gedd dem su ma toogee gis ñuy wëlbati ma génn ñëwaat fekk ñuy raxas bool defal ndànk loolu boolu dëkkandoo yi la de ñoom déglu wuñ li ngay wax de bàyyi leen lëmbal bi ci biir terrain bi jël leen bal bi te bàyyi lëmbal mais Arteta ni ngay communiquer ak sa booy yi baaxul. boo waxeewul ak ñoom nii dañ lay yab te bëgguma ku ma yab dama bëgg ñu ragal ma. man de ragaluma la sama nijaay daf ma mës a rëkk ci tontu mag moo tax ma kay sooraale. Eh. <laughs> mais lëmbal sax dara nekku ci xanaa anam biñ koy defee la rek. ma ni nanu may suñu jàmm moo fi dàqal lëmbal biir nekk. mu ni. Eh. lii moo tax mag warut di xuloo xale yëri kay leer na kon keroog ay deux heures du matin moo doon raay joxoñ eh loolu kër giñ jàndal la de bu leen ma fontoo mais kii fu mu jëm bu ma kenn téye bu ma kenn téye baleen ma ma ma daw ba kenn laal ma yaa eh, kolop mag nga tamit weesu nga ay langa buri buri langa dinaa langa buri kay lépp ak salaa moo ma ko di ma yóbbu ay orpali xamuloo sa bopp nag fii laa la laaj man ak Sadio Mané moo doon sa préféré nga ne man maay sa cappali bang bang. Eh! ñoom ñaar luñ jotee ba léegi mooy sama problème. kolob dafa tegoon poñseem dem wuti suukar ñëw fekk salaa lekk ko. mu ni. Eh! mais salade dellool poñ sa jàmbur. xëy lekk ma ko. yaa ko lekk muus mu ndaw mi gis na la ba wax ma ko. lii lum doon. wuu waay wuu. noqu Messi mi mu naan waay wuu. ku laal Messi dañuy xeex. Messi lu tax nga jógee Paris. waa lu ma fay defati sama xel dal na te sama poos diis na xol baa ngi gundaandaat. lii lépp naseer la waxoon naa ko Messi posonu kaña la. eh. Messi moo yey sax jóge Paris ndax respecté woo leen ko. ma ne na dem na dem na dem a dem. Nasser. eh. mais Nasser Messi bi muy ñëw sa équipe bi fekk loon na la fi. waaw kay comme yaa ngi koy fàttaliku boobu la doon ritambalee. kon Nasser da ngaa ritambaleel Messi man soo ma mayul lëmbalu naar damay dem sama yoon.